kookan la ñu ne Serigne Modou Gaynde borom kéemaan ak mën a faj ku fa ñëw rek sa ajo daal di faj mën ci hémorroïde ci ndoxum siti ci jabet ci góor gu tële wala góor goo xam ne danga am jafe-jafe sëy ci tension ci asthme ci sinusite prostate ñoomi nerf sciatique ak yooyu nga xam ni moom moo jaaxal nit ñi muy dimbali jigéen ñi lool ci faru rab coro rab am na ay ñaan pour ku tukki ku bëgg place wala sax koo xam ne dañ laa liggéey am na tamit ay jaaro yoo xam ne jaaru kéemtaan la ko xale yi wax nga xam ne boo ko takkee cat du la topp bëri bayre boo ko takkee da ngay bëri wërsëg waykat boobu ñuy wax sax moomu la takk am na jaaro boo xam ni wàllu kaaraange la am na jaaro boo xam ni cat du la topp am na sax jaaro boo xam ni dalay aar ci ay accident ak yeneen ak yeneen kookoy sëriñ bu mag bi mooy sëriñu ñëpp moom la ñëpp wóolu yéen annonceurs yi Kémane Vision moom leen di invité ngeen ñëw ci Kémane Vision bu def leen ay xiwal ngeen am ci moom ay prix yoo xam ne du ngeen ko gis fenn ci Kémane Vision rek ngeen koy gisee. yéen annonceurs yi yéen ñiy jaay wala bëgg ko fésal seen produit aca Kéemaan Vision pare na pour defar leen ko ci njëg bu mu gën a gën a gën a gën a wooyefee mu gën a ciidee mu gën a wooyefee mu gën a tampe ndabax bi taxee ñëw leen saa neexam locataire yi jar na bàyyi xel xiiroo beeg naayoo bi ci biir kër gi lay xewee jàllo mi moom kër gi amul suwaa tey muy jaay kër gi ndaama aaye ko ko ñaan ku faransé la

ah ma defal ndànk defal ndànk seytaane dafa bari doole li ngay wax nii man dafa mel ni léeba ka lippoon xaw ma ci dara dara dara li ngay wax da ngay dal. dama ni dama fii nii lu xew foofu rek ci guddi gi ah Eh, jànk xam nga lan la wax ji mi ngi bëgg a bëri da nga def ndànk gis nga nit du nga may benn nga jël fukk yow lan la lan mooy sa problème <laughs> yow da ngaa neex de ndekete. waa léegi comme que nekkoo fi yaw noo xam noo def ba xam ne damay def man mais léegi noo def ba xam ne man damay def comme nekkoo fi kan moo la wax li ma def ak lan laa def. ñànku. sans leer kon yow da jël dof bu ñu peinture da jël dof bu ñu peinture daf ko duul ko daf ko seytaane may wax nga naan li ngay def yàgg saaneex neex siis amu ci yow da neex de yow xam nga ne man faalew ma la yow man ak yow xamante nañ bu baax du fi dalal rek nga def ndànk. yow yow yow gis nga yow ah. yow saytaane nga. téléphone bi ma ko. mi ngi nii si waa kuy wax nii ndaay. ndaay maay wax nii. tey laa waaru. dégg nga <laughs> lan def <laughs> lu ma def ah asbunallah wa ni'mal wakiil waa kii lu muy xulloog yow waaw man ne bul wax samay wax kii lu mu la def nee na lu xew ci kër gi ñànku woo ko wax ko ko ñànku la def fen katam mm. waaw man lan la ñu def lu xew aarama faal ma faal Adama Fall nag moomoo ko. <laughs> takku la woon. ah waaw. fi bàyyi dem Italie. dégg nga fi mu li ma lay wax waaw. dina ah. lu wax. père loolu loolu yaar. ah man kat damaa xam ne kii yow Adama Fall lay ginnaaw da ngay man loolu. waaw man loolu sama yoon nekku ci ñoom ñaar bu ñu gisantee eh. nobante kii di dem kër Adama Fall ah! yenn saa ji fa fanaan sama yoon nekku ci sama yoon nekku ci waaw teel teel teel man loolu mënu ma ko seere kër gi liñ bi daa sa bopp waa koñ lay dégg man mënu ma koo seere yow de Adama Fall dina dégg li nga mënu ma koo seere ah. ngay sosal dina ko dégg yow baax na man li may lijjanti dinaa ko lijjanti après waaw baax na yow boo ñëwee senegal xam na ñaari jéeg lañ de man ak yow xamante nañ xoolal waa baax na yow tàllalal tàllalal ba nga ñëw Sénégal ba fekk ma fi voilà baax <laughs> ay man tey laa waaru man man Samb jommi naa way yow Samb ma xaram coupé na da ngay moroomu benn jéeg yow yow sa gere faas rek sa tay baa simtaat da ngay moroomu benn jeeg mu lay fontoo nekk Italie di jaay mbaxana mu rëy dof doflu Votre série revient après la pub. def a gën lu mu deful ñi ko xam a gën ñi ko xamul dem fa gën ñàkk fay dem kooku kan la moo du Gaynde borom Kéemaan borom càngat gi borom kànnaar gi borom ndombaay kaaraange maca raison bu kaw Kaolack kër Sambara xinjoobeen Serigne Modou borom kànnaar gi askan bi tuddee loo ca tëj loo ca tëj moo di kànnaaru gàllaaj goo xam ne booleem soxla boo ca def ci wàllum ut ut am am wala sax pexe ba fegu ci sa bopp kaaraange gi looloo ko tax a jóg yéen ñi nga xam ne dañ leen a yoreel boor a dang di ci yéeg a ko wàcc seeti Modou mu jox leen ci kànnaar gi den wax ci seen soxla seen aajo faju biir a ngi nii goo xam ne itam ku ne ci réew mi war na koy wut ñi ngeen gis ñu am ko ci réew mi ci moom la ñu ko jëlee moo di ñetti jaaro yi benn bi bàyyi la yaay ak doom ñetti jaaro la yoo xam ne mbooleem lu lay ubbee ci sa buntu àdduna mbooleem lu lay aar mu ngi ci ñetti jaaro yi Serigne Modou Gaynde Kéemaan moo ko fi am ci réew mi leneen loo dul jëlee feneen fu dul ci moom Serigne Modou Gaynde Kéemaan moo di ndombaay lu mag ndombaay lu mag ni turam ku ko takk dana la aar foo mën a toog koo mën di jëflante teg ba ci sax sa yoon yi tukki ndomba gi da lay musal ci l'accident ñi ko yoree ak fu ñu mën a toog jëye ju fa man di wax ci feek ñu ngi ànd ak ndomba gi yàlla da leen di musal ci barkeeb ndombaak wëllu mag gi lu manul ñàkk ci dund moo di koom-koom bu nit ñi amee nga am soo wutee am boo toogee itam di gën di am mooy càngatu fataan fataan cangat gi sang bi moo ko fi def ñi ko xam duñu fa gëj ñi ko masalaal rëcc wuñu ko càngat gi fataan fataan la foor na fooraay goo xam ne ku repp koy laal ñaari yoon ci at mi ko mooy yow mi ko laal ñaari yoon ci at mi génn réew mi benn wala daañu la ñamal kaso ñaar loole nag mooy firndeel fooraayu càngat gi te la mu koy defee seeru lii yëpp ma wax nag ay mbir la yoo xam ne liggéey lay laaj balaa koy def ak yow li si xaar ko gis say mbir génne say sarax doog a sóob ak yow ci liggéey bi numéro téléphone 77 972 98 81 Serigne Modou Gaynde Kéemaan Mathia Kër Sambaraxi Njóobeen dégte la ñeel réew mi bu ñëwoon nga ñuus ko ba tër ko ah waaye yow ku tukki sax ñu reer sa gannaaw dañoo bëgg ñu yàq reer bi rek bàyyi ko noonu reer bi di nëb dañ ciy reer ba suur mel nga ni nga mel mel Adama Fall jàpp na sa chocoline da doxal ba mu neex dégg nga la ah bu la neexee doo fa fanaan danga fay fanaan ba ci sàmba ma ca demba mu yëg ko moo gën. waaw naa ko pare nga. Hmm? laajuma man hmm. nga yàq yow man ngay weer. ok hmm. du gisante nañ man ak yow ma wax la li ma lay wax man ak yow. ok Adama Fall après. man de xam nga lu ma ci jublu woon xam nga lu ci jublu woon. moom nekk Italie di la gérer fii dama la doon jëmmal mu xam ni léegi ndoxaan gi am na c'est tout c'est tout. man loolu laa ko loo fi wax rek Adama Fall dina ko dégg. Ah. feet nga feet nga yéen ñaara yam yow moom danga ngaa wér ngay sulli sa guddaay waaye yéen ñaara yam kaay kaay kaay kaay naxasaale kaay dafoo jina jàpp la pantongolu la kaay fii mane nga ñëw ma ne nga tëj sa gat gi ba ma wax ba pare ñaa ngi seytaane nga ñaa mën nga duul ñaa ngi gaja boore nga dara safu la sa dënn bi nu mu ubbeekoo foo fekk borom weenu tusi di lang rek seytaane duulkat international la yow mën ngay duulal mën nga yàq. Fapal rek maama. mën yàq Fapal maama waxal. fen. waaw yaa ma dàq duul. waaw warkat ga sàcc ga. waaw sa xarit jox la caabi. amul nooy def caabi ji. waaw ñëw fi waa sakk si gérer kër di fat. am na nga jël xaritam bu faram jël nangu ko di. Ah, da ko defal lool la gu gu gën karantu wax lépp. maa maa mën na duul yaa mën a fen. maa tay tay yow yaay caga. yow mi yaay caga caga moom yow. mën a fen yow ma bu ma duggee si douche bi nga yëndu ma. bu ma nekkee ci biir bi nga ñëw yëndu. ah yow koo xool rek yow xool rek sa tubay ji xumb na. yàqu bay bëgg a dee. yow da ngaa caga ba yàqu nga naa ma la. a jàppale sa yére yi doo dof dara dalu la. fi gën a yàqu teguma la ko li la naqari teguma la ko li nga bëgg mënoo ko ah, dama laa fekk moom booy yow ma sama ma xooluma la ma affaire yi sama ko soxla saaku laa ci li yaa mën na yow kan moo lay bëgg ku lay nopp kan kan moo lay nopp ku lay nopp wala si su sumay xool jaar fii allé la tur nga nga yaa mën na patal forox waaw waaw wala si bu mais nga ba yàq sa tubay mën na réew ba daf ëpp sa wax ji day yow soo xeesal sa yow sa sa kaw moo xees sa taati ñu ko yaa mën na fen xeesal maase wul nga ñaan ko wax ji na jeex bu wax jeexul da la ah, nokku bëgg li ma la moo ma la moo maa doole maa gën a bon maa gën a jeex wax ji na jeex laa la wax hmm. na jeex na wax ji jeex laajuma la noppil noppil noppil te da ko préparé nag maa ba tëm ñàkk dégg nga mu taxawal taxawal taxawal imbécile boo fu ñëwee naa la nokk ba nga doon yow ni nga nekk li ñu la ci bàyyi. sëñ a ñëwal ñëwal kaay da ngaa réew man duma ñi ngay yàpp ci biir kër gi kaay ñëwal dofoo gis nga jàpp da ngay dof dof lu dañ naa nokkul moo tax boo fi ñëwee naa la nokk ñëwal boo fi ñëwee ma nokk ba nga day sa tubay ñëwal yow ñëwal rek. dafoo maa la gën a kandasu a nga ñëw ci kër gi réew ba dof tey muy jaay kër gi ndaama aaye ko ko waaye ndaama magay kër gi damaa bëggoon a wax ak yéen hmm. ku ne wuti foone ku ne yor say responsabilité bopp lu waral loolu bi ak hmm. dajaloo bi laa mun a tuta supporté ndax yëmbal laa njëkk dëkk. waaw fa dëkk Pikine. waaw tey maa ngi nii daw ba ba ba ba sali ñax-ñaxal gii ne fi. ah waaw léegi nag damaa lu nar a wër dajal ko. Mhm. koñ boo ma ne. saa neex ak locataire yi saa neex ak i locataire am saa neex sama tuur bi di dem ma <laughs> mënatuma ko sàcc si ci kër gi la ñu ne. mag ñi njaaloo ci kër gi la ñu ne. lu yi ci kër gi la ñu ne. jigéen ñi jaay seen bopp ci kër gi la ñu ne. fenkat yi ci kër gi la nu ne ñu may joobee sama tur bi di dem saa neex ak locataire yi saa neex ak locataire faat sàmba ngi nii xëy fi tey ci suba toj sama gémmiñ gi ni ma doo fi wax tamay mag war koo mën a jur mu ngi porté ji eh, ñànku pelent ñànku it jàpp fii faat sàmb saaga ay ndey ba kër gi di a toj koñ bi yëpp ñun la ñuy joobee te mag nga mënatuñoo bokku néeg nga war a wax waxoo ko de muy lan yi nga war a wax mooy ñi nga dajale ci kër gi ñoo la yóbbee lu dal loo dal moo ñi ma war wax mooy mag yi jàpp gone yu ndaw yi di leen dugal te may génn sama néeg ñun ñëpp dugal da dugal may dugal mais yow man man foo ko mës a gis yow man yow yow yow bàyyi loolu yow nga bàyyi ay duul ah. yow mi yaa war a bàyyi fen yi fan kenn yaa ah. Ah. di dugal ci ni kër gi bañ ko ko wax taaw ba léegi aw am na <laughs> sama fulaar gis nga ma mi kii mi ngi nii après. ah ngoon laa xëy ah, ngoon. daa mel man sama lay wax sàmm. waaw. gis nga police googu nuy wax. Hmm. geneen dina fi am. lu tax kii sama sama sama portable ba ma jaayoon. Hmm. ndeke da koo sàcc. fayal xaalisub jàmbur. nee na da nga koo amee trente mille. trente mille la la fay ko trente mille am portable bi jaay ko ko trente mille. dama Sadji. waaw. man Sadji Kara laa. waaw. je suis frère d'elle au fleur. kii kër nag fu ko nit di lijjantee nag tare. xam nga loolu. waaw léegi. ci nga waaw. barka bil barka seen am um am ma ko sant mi. ñaata ma amee ñëw. deux mille la ma amal. ñaata. deux mille. ay deux mille la la jox. waaw yaa loo ko jaayee portable bi. quatre mille. ya iPhone quatre mille. waaw. léegi loolu dëgg la. yaw yaa mën a. xoolal dama la wala man man xool ma sama baaraam bi yóbbu ngeen ko laabi siina dimbali ma. yow xool ma yaa ngi may gis. ñaata la nga ko amee. wallaahi. quatre mille la ko amee avance mu deux mille. quatre mille la la amee. luubu naa jëlee fi jàmbur mën naa gees waaye du fen. quatre mille la la yow it de mën ngaa fen yow mën na. waaw waaw ma ne dégg ay wax waatal sa digganteeg yàlla ak yonent yow sama waatal sa digganteeg yàlla ak yonent bi sama trente mille di ma ko waat ko waat ko nekk ma fi di waatante kenn fenkat nga yaa ma dàq fen li jëntil deux mille am li jëntil deux mille am jox eh. du ma ko liggéey deux mille damay saati beneen téléphone ah, ah, ah, du ma ko jël de téléphone du ma jël deux mille moom du ma ko jël indil mille jox ma ma jox ko waaw moo jël deux mille na nga lijjanti woon téléphone waaw yow sunu yoon nekku ci alali sàcc ka du ma ko laal. ah daa sàccoon jaay la. damaa xamoon da ko sàccam de. su lu yoon nekku ci. oh aw temps loo tardé. amoo a pas de temps. y' a pas de ah, ah, ah, man kii dama koo bëgg. gis nga kii nag. yaag moom benn ngeen rek. li ci moom rek a nekk ci yow. xam nga yow magay ñeme nga ñaaloo mën a riba. trente mille quatre mille. deux mille ngay fen ba trente mille laa lay tuddee léegi. ab iPhone dinaa ko jënd. di ko jëndee deux mille to quatre mille francs. ñëw ñëw naan quatre mille boo la gën def ma ca. vingt ak quatre dents. noonu lay sa tur léegi da jàppal ci loolu vingt huit mille quatre dents. lu ko waral kër gi daa neex. boo xamoon lu koy yoot moom dafay ñibbi ndax saa neex tey ma wax la lii jikkoom.